très rapidement Samba Tall ci ci la la la situation économique, économique actuelle du pays parce que c'est important ñu jeexal ci loolu euh, te li ma ci intéressé mooy de plus en plus su may liir la la la presse euh, su may déglu également ñenn ñi mooy ñi nga xam ne ñoo war a dëgg-dëgg doxal l'économie c'est vrai que nous sommes dans un pays où l'informel domine bu baax a baax mais l'entreprise mënul ñàkk ci économie euh, tey ji benn entreprise yoo xam ne ñi ngi jooy parce que l'État leur met trop de pression Euh, les impôts yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen est-ce que loolu c'est un choix des des nouveaux tenants du pouvoir de mettre la pression sur les entreprises pour am lu mu def ci gafakaam ndaxte li mu yor bariwul wala boog euh, Macky Sall bàyyi lu leen loo xam ne mën nañoo dundal réew mi wala c'est quoi c'est quoi le problème pour que depuis que Bassirou Diomaye Faye est là en entend ça et là les entreprises les entrepreneurs en tout cas ñuy ñuy joytu waaw xam nga loolu Moustapha dafa am lu ko waral déjà. oui déjà bu ma neexee nous avions un ministre de l'économie du Sénégal, mais nous n'avions pas un ministre de l'économie sénégalaise, parce qu'il ne cinq pour 5% de l'économie sénégalaise. leneen li ci des yëpp c'était dans l'informel. loolu mooy dëgg bu fekkee ni yow da nga yor maanaam da nga ko donn parce que mooy li muy li muy faral di wax ni noo bëggul ñu comparer parce que dafa am lu ñu fi fekk. lu ñu fi fekk. dafa am yow foo bëgg dem. c'est que échelle temporelle bi moo tax bëgguma comparer. waaw non je je sais je sais je sais. ñi 12 ans la yéen. 3 mois non man waxuma ci 12 ans yi mais li nga fi fekk sur. sur place liñ la bàyyee mooy li ma la sànq. ñun fekk ñu benn genou benn Sénégal à genoux dañu fekk un Sénégal à terre tout et à refaire ñun loolu la ñu gëm. léegi nag boobu aussi du la ñu yóbbu fenn. non non. ci loolu la ñu gëm laa wax. léegi xam naa ne loolu moo nekk les rapports yi Pape di wax. rapport yi bu génnee. waaw may ma on verra wax am na. ci ci ci loolu loolu laa jëm. <laughs> Moustapha léegi nga ni. oui sénégalais yi bu ñuy xëy dañuy dem di dugg dañuy dugg autorité fii jël fii jël fee dugg fee. Moustapha tout ce qui conçoit une route est au Sénégal sauf le lien hydraulique muy goudron. leneen li yëpp matière première muy ngi ci réew mii. goudron bi rek la ñuy wuti kese. te bientôt boo tàmbalee exploiter sa pétrole nga am ko. boo jëlee l'emprise l'assiette la plateforme et la forme d'une route sa coupe longitudinale couche de base couche de fondation sous-couche revêtement lépp ngi ci réew mii yow nga jëli ay chinois CRBC WE maanaam euh, nan la tuddati matière une société française matière ça maanaam yooyu yëpp nga jëli leen yow ñu lay facturer benn kilomètre de route 3 milliards 700 4 milliards benn kilomètre. xam ah, nga am na Sénégal yu defar ay tali Ablaye Wade ñëw ne baaxul ah ñi ñëpp ngi fàttaliku. exemple laa lay jox tali Kaolack bi. c'est pas la même chose euh, nu nu mujjee. may ma may ma c'est pas la même chose xam nga tax c'est pas la même chose. Mhm. tey ñooñu mën a limal noonu yëpp ay experts lañ de mais dañ leen di jox mine de latérite carrière de latérite jox leen carrière de basalte boole leen ak cimentier yi nekk fii ñu leen di jaay Goder en gros. c'est pas pour faire de la publicité c'est parce que liggéeyu ma fi CSE bu Aliou Sow Sow 100 pour cent sénégalais. te mën nañ defar tali mais sous région bi man j'ai travaillé avec ces gens là sous région bi li fi nekk ci tali yëpp fii ba Nigeria lépp ñoom ñooy defar tali. CSE pont Yoff bi ñoo ko defar. oto pont Yoff yaa ngi dégg. Euh, euh, euh, bi nekkoon te léegi tudd Talix Mine. Baaratal Baaratal moo defaroon Kaolack bi Abdoulaye Wade ne baaxul. mais merci Baaratal dem ci kaso. may ma may ma yow bu fekkoon ne. bu fekkoon ne ab secteur privé national moo def mbuxum bi kon temps yi doo ko génn kon doo ko gis biti état xam na ni muy doxee mënoo am genre nit ñooñu nekk ay capitaine d'industrie à côté vous avez les génies militaires des généraux des colonels am seen diplôme ingénieur a génn école polytechnique mën a defar ay tali mais loo bëgg ñu defal la ko Tamba Jalo Koto ñoom ñoo ko defar ak yeneen ak yeneen génie militaire amul lu ñu mënut a defar fii. sama taal da nga ñu bëgg wax ne ñun bu ñu bëggoon defar suñu ay tali euh, ci suñu ay kiiw bopp. mais le génie militaire peut le faire kenn. le génie militaire peut li may wax ni je. c'est parce que tey dama dégg. Euh, euh, français yi la ñu ne dañu gagné ay médailles yu bari seen Jeux olympiques yi parce que 40 pour cent des athlètes français ñii ne ci Jeux yi. armée française ñoo leen moom. est-ce que mën nga mën c'est des gens de l'armée française 40 pour cent. ça veut dire quoi que ni. c'est un corps de métier le génie militaire est un corps de métier. moi qui vous parle j'ai été sous les drapeaux j'étais au militaire. c'est un corps de métier. ñooñu mënoo leen am. ak entreprise yi ma la limal nii ñu nekk Sénégal ba pare nga am problème mu BTP. kooku mooy benn. deuxièmement bu ñuy wax waxu. réew bala nga moom bala nga bala nga luñ koy waxati bala nga laax jaay xaw da ngay laax lekk pare laax lekk pare ñun est-ce que ñun dafay war a poser problème ñun li ñuy dundee ñun ci ndékki ci añ ci reer ñun ñu koy poser problème ñun pour ñàkk ko ba koy di ko wuti bitim réew ba mu teg ay mille soixante di milliards. loolu warut a mën a nekk. muy meew bi di mburu bi bale bi di lépp mu ngi sa réew. non blé moo amu fi. non ñu ngi koy bay. daa ah, bëriwul rek mais ñu koy béy. merci beaucoup le courage de le faire l'option de le faire. am ndox aussi. ndox bi am nga ko suuf am nga ko am nga ay ndaw yu jàng ba am seen ingénieur am nga ay ndaw yu am kàttan am nga suuf am nga ndox am nga jant am nga ngelaw. am nga ndaw yu judd ci bay yaru ci bay. qu'est-ce qui te président bu si judd yaru ci màgg. tey ci programme bi nga xamante ci pôle yi ngay wax. pôle yi ngay wax lépp luy produit animal. fan lañ ko wax boori daara cela veut dire que ni man maa dem soow bi dañ koy meew bi dañ koy tuur nawet dañ koy tuur nga gis ay oto di jóge fii dem ba foofu ay tank aluminium ñu jënd litre cent franc cent vingt cinq cent cinquante ñu ci def glace parce que dañuy bañ mu way di ko jële foofu di ko indi ba Ndakaaru Njaay fii loolu mi ngi am ci réew mi Sénégal mën nga fi def transformation la verte Casamance est là hmm. amul lu fa dul sax benn usine de transformation sax pour nga créer ko fa problème la mais c'est quoi le problème dikk nga dëkk nga ñi war a fay lempo ci dëkk bi hmm. ñoo dul woon fay lempo. daara boobu da nga ci war a taxaw ndax meew lu mu seeree ci réew mi. waaw daara moom yàgg naa dégg dañuy tuur meew xoolal euh, ma 1200. ci dëkk bi. yàgg naa ko dégg. soo déggee sànq ma lay wax les huit pôles là. Mm-hmm. foofu mooy benn pôle bi nga xamante lépp luy jógee ci produit animal la. cela veut dire que ne yow ba fromage ba fromage non kii yëpp. fromage. beurre soow lépp. dama ne la soow ñun war nañ koo jël ñun bitim réew. Ah. meew bii meew waxuma la meew yi ñuy fii nii de xam li ñuy. meew bi meew bi ñu defaree ñaam bi xaw ma merci beaucoup. Mm-hmm. meew vrai meew laa man amul lu ñu mënta am ñun. Ah. ñun dara jombuñu en offshore comme en onshore nous avons tout. li may wax sama gars yi ngelaw li sax ngelaw li yàlla bi ñu joxul facture sax ngelaw li sax ñu ngi ciy génne courant demal Taïba Ndiaye. 158 mégawatts. mais malheureusement Macky Sall def na ci lu bëree bëri. no def na ci lu bëri mais moom moo ci lenn nag solaire tout le <laughs> solaire. tout le solaire se privé. c'est privé. Mhm. Ah centrale solaire boo gis Sénégal c'est privé. éolienne boobu c'est des danois ñoo ko moom. 158 mhm. mégawatts lay génne. c'est 42 turbines. à des de cent dix huit mètres bu nekk di la génneel trois quarante cinq mais moom moo ko da koy jënd c'est des privés. mais ñooñu ñoo maanaam Sénélec moom moo ñuy jox courant mais intermédiaire la ñee dañ koy jaay moom mu ñuy jaay. dañ koy jaay moom ñu jaay. te ay weñ kese lañu teg. weñ se ngelaw gi di ko ëpp. waaw tey jii. tey jii waaw mais nag mais nag. tey jii may may gale Samba Samba Tall da ngay da ngay àggale mais allez allez-y. waaw c'est-à-dire que dafa ni ko description bee yomb. mais interrogeons l'implication du secteur privé pour que maillot bi dootuñu ko tuur pour que ñu mën a am une centrale sur la base d'un investissement national lu tax amul. parce que ça demande beaucoup beaucoup des ressources xaar ma wax la ko xaar ma wax la ko exemple bi ngay jox ci entreprise meew bi rek chaque fois nga koy rappelé ba fi ñëwoon euh, ba mu ba Ba maanaam Moussa euh, meew boo ci yow lañ ñëwaat. maanaam meew buy jógee Hollande. ak meew bu ñuy defaree fii Sénégal meew bu ñuy defaree Sénégal la ñuy teg plus de taxes. que meew buy jógee Hollande loolu nu mën a nekkee ah, ah système Sénégal boo laajee sunu mbokku bijoutier yi. Mhm. xam na lan lay wax. comptoir or bi jóge Sabodala mënta am Dakar ndax problème mu TVA la. ñoom loolu lañ lay wax. man Sénégal man ma nekk un pays aurifère un pays aurifère plus de. 4 5 mooy boo xam ne mën nga produire or. or ah ñoom nan lañ def ñoom ay Neuchâtel ak yeneen ak yeneen ba dugg. London's Billions Make It Association c'est l'association des professionnels des métiers précieux qui sa trouvent à Londres ñuy affiner ñooñu agréé leen mais ñun tey dans ce petit pays qui se nomme le Sénégal 192 722 kilomètres carrés nga am 35 ressources naturelles benn sénégalais ñëwul investir. xam nga tax ñëwuñu investir. parce que parce que ça demande beaucoup de ressources. comme déedéet xam nga lu tax mënuñoo investir. oui ma wax la wax ci daj dëpp gi xam nga mooy lan. mooy lan multinationale bu ñëw ñu defal ko exonération fiscale et douanière sénégalais bu fi ñëw ay impôt TVA rey la. mais mais justement loolu moo la sama question. impôt TVA ñu ngi rey sénégalais. merci raison pour la oui. raison pour la laquelle ñu lever ñaari ñaari ñaari ponk. ñu daane la ci loolu. ñu lever ñaari ponk. Mhm. ponk bu njëkk bi mooy sur le contenu local. beneen ponk bi nga xam ni nit mësu koo jël fii ci réewu Sénégal depuis l' indépendance à nos jours. Mhm. <coughs> loi boo xamante ni <coughs> dañuy wax sur la souveraineté économique. mosuñu ko jël ci réew mi mosuñu ko fay jël. c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal te dañ koy topp lu sénégalais mën kenn du ko jox keneen yow li marocain yi am fii ci biir réew mi. oui amoo possibilité am ko Maroc. non non non. Turquie la même chose pourquoi ñun ñun li ñu gëm ñun lépp loo xam ni production la. je veux dire tout ce qui yaa ngi wax production mais ñun pour gérer aéroport sax il a fallu ñu woo Turquie ñu gérer ñu ko. nan nga mais gérer aéroport si on n'est pas si nous Sénégalais yow kay xam nga de gérer un aéroport yow kay xam problème suma ak luma. yow nga dem yow ba Sénégal loo fa am 33 pour cent. loolu mooy xoolaat sa bopp. Cela veut dire que nous, nous ne devons pas être étrangers à nos propres ressources. C'est dommage, c'est regrettable, nous ne méritons pas. Mais, mais, encore une fois de plus bu fekkee ni tey basé wu nga sur ce contenu local basé wu sur cette souveraineté économique jàppale say doom woolee sénégalais et di d'ici et de la diaspora wax na ko léegi mhm. nga defal leen ay contrat préférentiel tey si vous appelez sénégalais ku bëgg investir ci céramique céramique usine Bandia bi nekk fële Tayfor cinq petits milliards la pour quarante cinq petits milliards lépp luy ressource liy defar carreau lavabo tout ce qui céramique mu ngi ci suñu suuf ñun fii Sénégal tey ñi bëgg investir ci marbre bi ñëw ñi bëgg a investir céramique bi ñëw ñi bëgg investir ci or bi ñëw ñi bëgg bientôt ñu ngi wax ay waxu voiture électrique oui nous avons plus de dix millions de tonnes de lithium tey yow nga loolu yëpp nga yor ko boo woowee sénégalais yi ni ku ñëw investir un nañ la defal exonération fiscale et douanière je dis n'importe quoi nag dix ans exemple mu leer na ne en cinq ans di duggaat ci sa investissement. am nga beneen cinq ans. li ci des yëpp da ngeen di fay li ci des yëpp ngeen fay comme ni ñëpp di fayee. état gën cee gis boppam. tu crées de l' emploi. Oui. Un, tu crées de ba pare ñoo ñu dugg ci conseil d' administration bi boo wëlbatikoo boo leen bëggee neexal comme ni ko Pape Matar di waxee léegi sax ñooñu jar nañoo jox cinq 500 mètres carrés titre foncier ñu ñëw dëkk ku bëgg a tabax. maanaam ñun ñibbisi tey ji man gëm naa ni man diaspora sénégalaise bi am na taxawaay boo xam ni ñii buñ ko taxawee te man dama jàpp mi ngi bëgg a gudd Samba Tall mais mais il faut ma laaj la leen rek bala may dem ci sori parce que euh, ah ah. émission bi jeex na ah est-ce que tey Sénégal mm-hmm. jamono ji ñu ngi wax ci wàllu transport mm-hmm. d'ailleurs bokkoon na ci li mu bëggoon ñu waxtaane ko sax mooy lima ma tuddee les poches de résistance mhm. parce que gis naa tey ay transporteurs yu yëkkati seen loxo commencé di kaas naan waaw ministre bi su defee nangam ñu def nangam ah. di nga ko gis ci yeneen domaine ah. mais suñu taxawee rek ci domaine euh, c'est juste un exemple ah, ci domaine de transport pour avancer est-ce que richesse yi nga tudd yëpp ne am na ci réewum Sénégal est-ce que jàppoo ne bokkoon na ci lu waroon ñun bu ñu bëggoon tey par exemple defar suñu ay saxaar ay train <laughs> est-ce que li ñu am waru ko yombal. yow yaa ngi may yaa ngi may yaa ngi may ñëwal dëgg. Euh, gñneel non damay seetaan bërki démb. gñneel <laughs> euh, Tanzanie. Tanzanie pour relier ñaari partie de de de Tanzanie mais train bu mucc ayib comme yi nekk Amérique yi nekk France est-ce que yu mel noonu man naa am ci réew moo xam ne am na richesse yi nga wax yëpp nii. ñu ngi si dañuy dem Tanzanie dañuy jàpp ni ñun ñun. dañuy jàpp ni te man li ma gën ñu ngi ciy liggéey. lu tax man la ñu ngi ciy liggéey. Mhm. est-ce que vous savez une chose bi nga tàmbalee wax noonu léegi. di wax waxu train. train yi fi am yëpp écartement 90 la. gars yi ñu ngi koy standard 150. est-ce que xam nga ni y a des yoo xamante ni GNL la ñuy daw. xam nga loolu yow. non am na train yoo xam ni roule au GNL. ça veut mooy euh, gaz gaz bi ngay exploité fii. gaz bi ñuy fii suñu diggante ak Mauritanie. mooy gaz naturel liquéfié bi. am na train yoo xam ni moom la ñuy daw am na. camion yoo xam ni GNL la ñuy daw demal Hollande demal feneen ak feneen da nga koy gis cela veut dire que nu nous anticipons gaz tupo dégg nga ko fi. lan moo indi lan moo indi centrale bi nga xamee ñu ngi koy bëgg a def fële nga xamante moom mooy defar urée. Mm. urée xam nga ne Sénégal kese mënu ko inondé sous région bi la ñuy inondé en urée. kooku kenn la ci projet yi beneen projet bi nga xamante ne dañ ci ñëw après mhm. pour defaat le nitrate d'ammonium parce que tout ce qui est industrie extractive tu ne peux pas le faire sans le minage si tu parviens maintenant à avoir li nga xamante ne tey jii moom mooy le nitrate d'ammonium cela veut dire que ni yow Sénégal Afrique de l'Ouest yaa leen di jaay yow nitrate d'ammonium très bien loolu gaz moo ko indi beneen bi gaz de Power gaz de Power bu ñu koy wax mooy centrale bi ma lay wax nii léegi bu Cap de Biche bi mhm. gaz ñun te loolu réseau gazier bi la sunu centrale ñun suñu gaz ñun moom la ñuy jël dugal ci centrale bi lakk ko comme ni ñu koy joxe Sococim Sococim dafa am centre gaz bu ñu koy jox ñun. waaw gaz boobu lay jël lakk ko jël ci lim ci soxla li des mu dugal ko ci réseau Senelec tey mënoo am tey plus de mille milliards de mètres cubes de gaz. gaz bi ñu yor nii xamul nga tax mu neex. allemand yi déggoo leen fi. français yi déggoo leen fi. mais soo deful géopolitique defoo géostratégie mënoo comprendre les vrais xam nga lu tax. Mhm. parce que dañuy jàpp ni ils peuvent tourner le dos à Poutine. à la Russie. mais bien sûr parce gaz bi ñoom bu ñu ko amul ñoom. sedd bi moo leen di rey. moo tax processus bi. day jóge épuration déshydratation pré refroidissement ñëw liquéfaction cela veut dire que ni dafay nekk corps état gaz ñu def ko en état liquide. oui parce que léeg jël ko oui. yóbbu ko en France regasifier ko dugal ko ci seen kër yi mu leen di chauffer la. c'est que les loolu boo xamee mënuñu vivre sans gaz. et Poutine n'est léegi nag loolu boo xamee yow. lan lay tekki loolu mooy jeeg boo xam ne da nga war di bajantu parce que vous avez <laughs> tout. tout on a tout euh, sori sori mais le problème mooy li muy wax nii c'est pas la première fois ñu koy ñu koy ñu koy dégg.